amaat nañu mbégte teew fii sur le plateau de le débat de lundi di leen nuyu bu baax ziar leen euh, kontaanaat daal di ñëwaat naam bu ay fan euh, manqué woon nañ ci plateau bi waaye euh, gis nañ ni liggéey bi mi ngi doon woy ak it nag saa su nekk ci thème yu am solo tey nag dinañu ñëwaat ci loo xamante na dina am solo it également pour population bi mu di criminalité bi ci réew mi. wax ci insécurité ndax it nag euh, nekk na ay fee yoo xamante ne nit ñi saa su nekk euh, ñu yëkkati ay kàddu di ñaawlu yenn ci ay fee yu am euh, benn bi di lobe Ndiaye nga xamante ne nii Euh, vendeuse de pièces détachées la woon ñàkk bakkenam ci dañ ko boom euh, kaka def nag ci li jàpp di ab féticheur malien euh, moo ak ay complice am gendarmerie nationale teg na leen loxo loolu nekk loo xamante ne lenn la ci weer yu ñu génn mois de mai su ma juumul gis nañu également ku mel ni Lotali mole nga xamante ne ni étudiante congolaise boobu ñu faatoon fële ci Grand Yoff jóge woon Euh, ci révision yu mu doon def ci examen yu mu doon waajal euh, ñoom moom itam ñu daal di koy faat euh, fële ca Thiès Mbour de quartier boobu benn góor koo xamante ne doomam bu ñu jàpp ne xelam dafa manqué moo ko faat mu di ay ponk yoo xamante ne nii bëri na mën nañ fi nekk di lim yeneen ci ay fee yu am infanticide ak yeneen loolee tax nag tey débat yu lundi daal di samp waxtaan bi ngir ñu daal di ci mën a jëlee ay njàngat xool naka la ñu def ba ak ci ndax société sénégalaise moo nekk société boo xam ni euh, dafa violente léegi ba tax na lépp loo xamante ne ni ci yenn fee yi daanuñu ko doon faral di gis mu bëri fi loolu ndax sax banaliser wuñu ko loolu yëpp daañ ci dellu si ak suñuy gan waaye altine bu jot dañ ci ànd ak euh, Babacar jon mi nga xamante ne journaliste la Babacar nuyu naa la namoon naa la. maa la maa la raw maa la raw arab euh, di kontaan loolu gisaat la si plateau bi. ah léegi wérgu yaram dafa am solo <laughs> te vraiment ñëpp ak téléspectateurs yi kontaan gisaat la fii bon entre temps on avait notre sœur Astou. oui te si elle a bien assuré xam naa mi ngi seetaan émission bi fi mu nekk nii. mais bon pour dire que également je crois que c'est un thème d'actualité ah ça ne nous sort pas euh, si catastrophe bi ñuy dund ak Covid. Mhm. mais nag c'est toujours important quand il y a des meurtres euh, si benn dëkk boo xam ne peut-être. d'habitude entre griffes dañ naan euh, c'est un pays pacifique ou en tout cas un peuple pacifique ou de pacifiste bu amee yu demee noonu toujours rek c'est important que ñu taxaw laajte pour xool fan la ñu jëm ah lan moo ko indi te naka lañ ko gën a mën a faje je crois que loolu moo waral waxtaanu tey jërëjëf ñi ngi ànd ak également docteur Pierre Ahmed Ba nekk socio-anthropologue docteur nuyu naa la maa ngi lay fay Euh, kontaan ci invitation bi ngeen ma invité. socio anthropologue mooy la. du ma socio anthropologue anthropologue la. <laughs> li nga may préciser avant l'émission. ça c'est anthropologue. et euh, je travaille sur. Euh, man dama laa laaj. les systèmes complexes ci wolof nga may tontu anthropologue mooy lañ tojal yàq bi. anthropologue bon yomb na nit la ñuy jàng nit la ñuy jàng daal. donc euh, ci fi nit jógee ba fi nit yegsi ak li nit di doxalee ak li muy def euh, ci loolu la ñuy yëngu daal ci la ñuy xalaat di ci réfléchir. d'accord dinañu ñëwaat si moom am na solo ci waxtaan bi euh, ñu ngi ak maître Amadou Aly nekk avocat la cour nekk également militant des droits de l'homme maître dalal jàmm ci plateau bi. merci beaucoup Aram merci Babacar merci Pierre Ahmed Ba je suis trop ci teew fii émission bi. et bokk ci ñi waxtaan ponk bu am solo bi ngeen teg. Mhm. mooy affaire criminalité ak les causes ak euh, ni ñu ko war a xeex yëpp teen ci ñëwaat incha allah. jërëjëf dinañu ànd tamit ak waxtaan bi ak ki nga xamante ne nii moo di euh, Cheikhna Keita nekk commissaire à la retraite moom itam bu teewee ñu daal di euh, waxtaan ci li nga xamante ne nii junj naa ko léegi mais maître si yow laay njëkkee ci li nga xamante ne moo mujj ndax. ci li ñu génn ci fan yi li ñuy liir bés bu jot ci wàllu info tey ñu taxaw ñu ne euh, ab féticheur moo moo moo def lu hmm. mel nii ñu waxat encore koo xamante ne nii euh, ñàkkaat na bakkanam ci ay conditions yoo xamante ni doy na waar euh, Sénégal toll foo xamante ni lu mel noonu léegi dafa dem ba ci déggin bi xëy na dootul émouvoir trop nit yi lan moo ñu dal waaw man de dama jàpp ni que loolu question bu am solo la jot na ñu xalaat bu baax ci li tubaab di wax les déterminant de la criminalité maanaam lii sooxe criminalité lii sooxe violence mm-hmm. est-ce que ñàkk xam-xam ñàkk yar ñàkk valeur ñàkk diine mooy tax nit ñi def yenn yi wala est-ce que ñàkk rek tout court maanaam moo ko indi walla ñaar yëpp mooy daje nit ki am comportement bu violent mm-hmm. donc euh, loolu aussi bu amee ça pose la question maanaam loolu aussi dina tax ñu laaj est-ce que famille ni mu meloon démb ni mu daan yaree ay doomam waaw ngi koy def ba tey est-ce que école ni mu daan jàngale démb mu ngi koy jàngale ba tey loolu yëpp aussi c'est des questions qu'on doit mettre sur le tapis léegi gis nañ fi ay élèves yoo xamante ne yuy dóor seen seen maître mhm. loolu violence àgg na ba foofu li ñuy gis dafa bari ci wa forme violence li nga wax ni rek forme bu bees la féticheur bu ñëw woo son client rey ko kooku manifestation rek la même ni muy manifesté woo criminalité bi violence bi dafa bëri ay façon ni muy manifesté woo maintenant ce qui est important à mon avis mooy lan moo ko sooxee ak naka la ñuy def aussi ba dégg nga maam indi ci ay réponse ay solution est-ce que du nekk effet météo rek parce que chaque fois su benn fee amee waaw nit ñi wax ci coow li bëri lool mais après quelque temps duñ ci déggaat dara no c'est-à-dire que xam na nit ñi moom wax lañu moom yore wu ñu action ñi yor action mooy les décideurs les responsables les responsables ñooy ñan mooy d'une part il y a l'État d'autre part il la justice mais également il y aussi les familles mm-hmm. loolu aussi famille yi phénomène yooyu ñu gis muy xew est-ce que ñu ngi réfléchir ci naka la ñuy aare seen doom tout tànk yi par exemple loolu bañ leen arrivé ñu bañ a eh, jaar ci tànk yooyu tout saa aussi dafa nekk ay questions yoo xamante ne ñëpp am nañ ci responsabilité du responsabilité état képp mais responsabilité communauté bi yëpp la ku ci nag am nga ci responsabilité dinaa ñëwaat si yow surtout li nga wax si justice bi ndax it nag eh, loolu tamit dina baax ñu ñu ñu taxaw si mhm. euh, mais Babacar euh, lii xew jamono ji Euh, fétichisme laa wax sànq. Mhm. ci fee bu mujj bi est-ce que quelque part euh, média yi wala média euh, sociaux yi bu ma ci boole réseaux sociaux bokkuñu ci li encouragé lu mel nii parce que tey ku fi nekk mën na jóg ne maa mën lii maa xam lii ñu jox leen tribune ñu mën na taxaw di wax est que du ñu nit bokkuñu ci li nga xamante ne ñu encouragé lu mel nii non aram dëgg la parce que boo xoolee souvent réseaux sociaux yi lieu de propagande la lieu de propagande la média classique classique yi toujours damay wax nii dina jafe loolu même si benn moment maanaam tradipraticiens yi bi ñu commencé amoon na si sax lu génnoon pour tere leen ni maa mën a faj lii maa mën a faj leen lu bëri na vraiment ñu bari nangu ko ba ñu si doon wax mais du point de vue affaire fétiche yi nga wax léegi réseaux sociaux yi maanaam euh, benn bayal la boo xam ne amul buntu ku nekk mën see dugg te ku nekk mën see jot. c'est très difficile ah c'est très difficile avec euh, réseaux sociaux yi nga mën ne kat lii di nga ko arrêté limité mais li nga wax dafa am solo parce que damay xool léegi par exemple le cas de Lobé Ndiaye ah nga xam ni rey nañ ko nga xool ki nga xam ne dañu ne c'est le présumé meurtrier euh, daanaka si euh, lu ñuy woowee TikTok foofu la woon defee propagande am mm-hmm. avec nag ay nit yoo xamee ni sénégalais lañu Ah, di ñëw di ko wane di wax ni maamaan la bu ay boo xam ne di ko jaay daal maanaam ñooñu am nañ ci ngandi part de responsabilité euh, mais yeneen yi aussi euh, dafa am man euh, jàngat yu bëri yu ma jàngat mais ñaari mooy que ni parce que dama tàmbalee wax ni Sénégal dañ naan dëkku jàmm la Sénégal yi fi nekk waaw lii de du jikko Sénégal wala yooyu. Mhm. je demande est-ce que peut-être <laughs> docteur nañ si wax est-ce qu'il y a un type d'homo sénégalensis Euh, standard boo xamee ni moo war a mel ni warul ci mais je crois que en 89 bi mu amee événement entre le Sénégal et am na ñu bëri ñu si am yeneen xalaat dañu ne ce que les Sénégalais capable capables de faire moment boobu. Mhm. donc war nañoo gis beneen type de Sénégalais. te xam nga ñun ñi nekk fii peut-être réewum taax bu euh, nit defee dara si ah, euh, si région yi wala yooyu peut-être doo xalaat trop que ni c'est le Sénégalais boo moom moo ko def alors que no fii parce que loolu dama bëgg quand même que yi xam ni ñi koy def lu jóob ay sénégalais lañu bon te ñoo xam ni da ngay nekk ak ñoom di bu attaaya guddeeg bëccëg benn moment seytaane la xamu nu ñu ko mën a woowee. mais bi bi kii du sénégalais. wa looloo tax ma ne nag. c'est important bu lotali mole bi tamit. tur tur bi waxoon. Ah. Bissau Guinée moo tax dama si bëgg ñëw nag pour bugguma aussi. Sénégalais yi parce que am na ñu may dégg ñuy waxee noonu stigmatiser les étrangers. ñuy waxee noonu étranger parce que waaw euh, étudiante bi je crois qu'on a fait notre première émission sur loolu ah. ma ni l'étudiante congolaise euh, étrangère la parce que Sénégal Dakar day attirer autant euh, vraiment nit ñu baax pour jàng positivisme mi ngi fi mais autant également comme tous les grands centres urbains day attirer également nit ñoo xam ne du ñu noonu. donc xoolal l'exemple de moo di ki ko ki ko ki ko gaañ ki ko faat euh, c'est un ressortissant africain bu ñëw Dakar. avec sa famille peut-être euh, pour gagner sa vie mais en même temps on a vu que l'étudiante congolaise aussi dafa ñëw pour jàng pour def donc ces deux contrastes yoo xam ni dans les grands centres urbains dafa am Dakar mais bugguma sénégalais yi naan waaw fële parce que li xew aussi beneen pays la originaire de la sous-région moo indi loolu donc mais bëgguma ñu analyser ko sous cet angle parce que sénégalais yi ñu ngi rey xam nga maa ngi xool léegi avant nga may wax ñu ne Euh, am na benn xale je l'ai lu avant-hier yàggul a tué son père ah mais parce que tout simplement nee na papa ji daf ko sonaloon ah daf ko doon gëdd da ko doon yuuxu et il a tué de sang-froid hmm. et il ne regrette même pas d'après l'enquête de police te kooku c'est un sénégalais ah nga demati ñu ne la euh, waxuma loobe mais à Thiès récemment une dame de 14 ans enceinte ba pare rey ko par euh, ki doon génn nga et on dit que doomu sëriñ la woon mhm. tu vois c'est que je veux dire que donc am na type catégorie bu nekk nga mën a génne ñi nga xam ni ñooy def le mal mais euh, pour man parce que j'ai parlé un peu quand même avec euh, benn sociologue avant waroon na ñëw mais peut-être euh, yeneen si indi mais mu ne ma c'est peut-être spectaculaire mais Sénégal yeggul benn niveau boo xam ni jar nañu alarmé wu c'est vrai on peut s'alarmer parce que euh, dem parce que nee na ma on est à moins de 2 pour cent du taux de criminalité parce que euh, la moyenne nationale parce que dans d'autres pays jox dama exemple euh, lu mel ni Burkina Faso lu mel ni tout ça day ba plus plus de pour cent Sénégal nee na yeggagul niveau boo xam ni euh, ma ni boo coow li mais laa nag moom il indexe les médias nee na médias yi ñoo koy jox ampleur boo xamee Euh, mu ëpp mais man sama xalaat mooy que ni boo gisee Europe lu mel ni France nga seetaan seen JT un petit enfant waxuma sax bu gaañu mais bu réer euh, tout le tapage autour de ces phénomènes la moi je crois que yegseegul Sénégal sama xalaat la. docteur. criminalité jamono ji li nga remarqué dafa yokk wala lii du lu bees si yow. bon criminalité euh, bu ñu ko bëggee saytu. il faut ñu def euh, ay différence mm-hmm. parce que du violence bu nekk mooy indi délit wala mooy indi crime oui bu ñu nee violence Sénégal toll na foo xamante ni violence bi ëpp na mais lu ci bëri violence bi du débouché ci ay crime mm-hmm. ça c'est très important ñu wax ko donc mooy li mu wax niveau de criminalité bi boo koy xool statistiquement tollagul foo xam ne wala nañu alarmé wu mais tamit luy raam ci ñag ba la jëm parce que mhm. violence mooy indi crime te violence bi dafa bëri fi mu toll nii li tax violence bi bëri buñ koy xool dañuy jël poñ yi benn bi mooy dafa am disparité sociale maanaam dafa am ñu am ak ñoo xam ni amuñu te li dox seen diggante dafa bëri maanaam toute structure sociale dafay am la haute classe am la moyen classe am la basse classe. Mhm. mais Sénégal dafa mel ni am nañu benn haute classe qui est là qui bu beaucoup de choses et de l'autre côté nga am ñoo xamante ne nii ay samba booy lañ ay góor góorlu lañ. te ñun ñëpp ñu bokk fi ñu nekk parce que boo xoolee tey benn sénégalais juróomi sénégalais boo jël benn bi Dakar la dëkk. oui donc ñu nag ñoom ñoo dëkk ñi nga xamante ni ni dañu am am ñoo xamante ni ni amuñu ñu bokk fi ñu dëkk di xëy di jàkkaarloo di daje di bokk fi ñu jëm muy benn disparité boobu dafay indi lu bëri ci wàllu violence beneen bi mooy on a beaucoup de jeunes dëkk bi ñi fi ëpp ay jeunes lañu ñi fi ëpp boo koy xool tey seen vingt cinq ans matul ñu toll fu ñu war a doxee seen jamono te amuñu lu ñu mën a doxee seen jamono te bu ñu xoolee ñi nga xamante ni ñoo leen jiitu ñooñu dañoo jàng ba yëy kayit di taxawaal. mais dox amoo loo loo amul pour dox sa jamono est-ce que tamit dafa war a légitimer dox sa jamono bu ko jëlee rek ci wàllu foo. non waxuma foo man je pense peut-être ku war a am liggéey xëy daan dooleem. foofu laay waxe est-ce que ñàkk ko war na tax tamit nga war mën a verser ci violence. dama la jox li nga xam ni moom mooy les causes. Mhm. cela ne veut pas dire que képp ku ñàkk rek tu deviens violent déedéet. oui parce que am na ñoo xamante ni nii dañuy dem wéeru ci ginnaaw yàlla am ñoo xam ni dañuy dem wéeru ci violence et c'est ce qu'on appelle une société malade. li ñu war a wax te mu ne fi mooy la société sénégalaise est malade. Mm. loolu moo fi ne xam nga lu tax. parce que dañu nekk ci des moments de mutation mu am benn crise d'autorité bu am mhm. au niveau politique au niveau social et au niveau familial qui est la base de la société dafa am problème d'autorité te problème d'autorité boobu boo koy xool ci biir kër lan moo koy indi borom kër dafay am ascendance morale ci njabootam ascendance morale boobu ñàkk da koy dindi li tax ñàkk di ko dindi mooy di nga gis sa doom di def naka su noonu nga war ko koo mën a tere xam ni lii du yoon te bis dina ñëw mu am ci bés doo mën a wax ndax la muy indi ci kër gi mu lay dundal assendance morale boobu dañu nekk di ko perte hmm. ñu am beneen assendance morale boo xam ni si l'autorité politique moom moo koy incarné njiit warul di wax waxam di deñ muy benn mm-hmm. bëri na fi ñu am ay images des images puissantes yoo xam ne société bi jeunesse bi dafa koy jot maanaam tey boo xoolee ñi nga xamante ni nii tey ñoo ñuy jiite nga xool suñu assemblée nationale nga xool dëkk bi képp kuñ fiy coow ne milliardaire nga boo musul bokk ci nguur gi benn ànd nga nguur gi wala liggéey nga ak nguur gi donc ñu dem ba ci parce que dañ nekk ci réew moo xam dañ la ne chance a gën licence maanaam wërsëg moo gën njàng. wërsëg mën na ci yoo xam ne xaalis dañ koy lijjanti. moo gën waaw ñu ne xaalis dañ koy lijjanti. léegi nga gis nit ñoo xamante ni nii dañuy dëggal wax jooju parce que da ngay gis koo xam ne amul benn jaar-jaar yow nga toog doon citoyen jàng ba yëy ay këyit comme ni ma ko waxee sànq ba pare nga gis koo xamante ni nii li nga daj daju ko ba pare mu ëppale la loolu la ñuy wax injustice sociale. ba pare ñu ne déetawaay ñu ne Sénégal ñun 15 millions lañ mais dañoo bokk tamit ci benn communauté benn CEDEAO ñun passeport CEDEAO la ñu yor yoratuñu passeport sénégalais maanaam dañu bokk ci communauté de libre échange ku mu neex dem ku mu neex dikk mais booy dem doo fa bàyyi sa aada sa cosaan da nga koy yenu indi ko donc la culture sénégalaise bi ñu wax elle-même elle est en mutation mais li xew nii est-ce que tey mun nañ ne ci deux faits yi nga xam ne wax nañ ko léegi ñu ne par exemple violence boobu noonu dañ ko fi indi que du sénégalais yi seen bopp ñoo ko def. mënuñu ko wax. Mm-hmm. la violence est inhérente à toute société. société boo gis dafay am type de violence am xam nga yéen a ngi wax que ni euh, ñu ngi wax que ni sénégalais jàmm la bëgg c'est pas un être violent mais teguñu ko fenn. c'est xam nga lu tax teguñu ko fenn parce que suñu histoire moo ñu ko wan kañ lañ fi mës a dem élection te amul ku ci bakkanam rot 1960 ba tey mësta am c'est-à-dire ñun dañu am ay cycle de violence 68 88 93 dañu am ay moments dans notre histoire où la violence s'exprime et quand la violence s'exprime quand la violence sénégalaise s'exprime parce que sénégalais dafa mën a muñ mais bu voilà mais bu atteindre seuil de tolérance am rek violence am noo def bakkan rot ci donc mënuñu ne nit ñi ñoo ñëw indaale seen violence indaale seen culture non y une culture boo xamante ni fondamentalement c'est une culture violente mais dafa am loo xamante ni ni ñun mën nañ ko bokk ñun chance bi ñu am mooy dañu am diine mooy jullit di catholique dañu am diine waaye am tuuti ceddo non ceddo bi moom fii lañ ko fekk parce que féticheurs yi ni ñu mënta wax it Sénégal ak diine bi fi nekk yëpp nag xam nga chrétien wala jullit xam nga fétiche xam nga féticheur bi malien la waaw mais lu tax ñun ñu mën a accepter fétiche parce que dafa bokk ci suñu culture parce que Mali Sénégal bi mu amee yàggul conférence de Berlin moo ko fi indi nit ñi dañ daan demalante avant conférence de Berlin di am donc du question de territoire Sénégal am na ñoo xamante ne ni Mali lañ jógee ñëw Sénégal seeni doom juddoo fi seeni sët juddoo fi ba ñu nekk ay sénégalais sant am na sant yoo xamante ne nii c'est pas du ay sant peuple wolof donc mooy li ma lay wax j'entends souvent les gens dire nos valeurs notre culture mais il ne il serait incapable de te définir lan mooy culture sénégalaise par rapport à la culture malienne ils en seraient incapables foofu ba si kanam non dañoo perte suñu c'est l'impression que cela me donne ma dellu si si si euh, si maître peut-être la question mën na la reetaloo mais ma je veux savoir ci suñu texte ndax mbirum charlatanisme fétichisme ak ñoom seen dañ koy aay wala Sénégal dañ lay teg daan. Ah non euh, interdit euh, yoon yoon def ko tere am des pratiques euh, de charlatanisme c'est même réprimé mm -hmm. par le dans la pratique tout le monde euh, y recourt ku ci nekk ñu bëri bokk ñu bëri dinañ ko def ci pet est-ce ci pet la ñenn ñi ils le font au vu et au su de tout le monde ñëpp di gis est-ce que absence d'autorité bi euh, docteur doon wax ndax du loolu moo indi tey euh, ci lu mel ni ñenn ñi di doxal te xam ni yenn saay dara du leen ci fekk. waaw xam nga xam nga réew comme li mu ko waxee. dafa soxla ay exemple xam nga Sénégal boo gisee mu àgg fi mu àgg c'est qu'on avait des exemples dans tous les domaines hmm. soo jëlee les guides religieux on avait de grands guides religieux ba ñu ngi koy am d'ailleurs oui on avait de grands leaders politiques de grands leaders syndicaux de grands avocats de grands magistrats de grands journalistes secteur boobu de grands sportifs mais ñoo xamante ne non seulement dañu mën li ñuy def mat ko di si joxe ay exemple tout de suite suma xel mu ngi dem ci ku mel ni président Youssoufa Ndiaye hmm. fii génn àdduna bu yàggul dan hmm. la ko yàlla yërëm tey xëy mais Youssou Ndiaye c'était un très grand magistrat moom rek laa gis bu nekk président conseil constitutionnel boo xamante ne rejeté na ñaari loi ñaari président mhm. en 1998 bi socialiste yi indee tegee Sénat dañu bëggoon bu fekkee nit ki nekk na député maire mu am ñaari vote maanaam en tant que élu national et en tant que élu local ku ci nekk mu am ci vote alors bu ñu defee loolu opposition bi à l'époque ñoomin président Abdoulaye Wade ñoomin Djibo yàlla na ko yàlla yërëm te xëy ñu saisir conseil constitutionnel boobu moom moo fa nekkoon mu ne ko non ça c'est impossible le principe d'égalité veut que un homme égale une voix mm. un homme deux voix amul fenn bañ ko deuxième exemple deux mille un bi président de falo ñëw fekk fii assemblée bi nekk socialiste mm. mu liggéey ak moom après mu indi constitution bees dissoudre dem élection alo lu mu bëggoon mooy moom si boppam diriger la liste du PDS opposition de l'époque attaqué ni loolu mënul nekk hmm. président de la République mante nekk ci liste électorale yi ñu saisir conseil conseil boobu aussi président Youssou Ndiaye moo fa nekk mënu ko ñett élection législative concerne mu président de la république ab président munu see bokk loolu moo tax war àll pour ñu defoon. des affiches la moo affiche boobu lëndëm noonu moom ak xaw ma la. donc. donc dafa amatul ça c'est un exemple. dafa amatul tey wala. parce que soo joxee exemple ancien ministre Youssoufa Ndiaye. oui en tant que magistrat ci liggéey bu am solo boobu noonu def dafay tekki ne tey amuñu. pilier yooyu ñu fi ndaxaw te ñu war ci mën a sukkandiku pour doxal yoon ak def li nga xamante ne mooy lu war ci ñenn buñ defee yoon dama ni dama jël exemple rek ci wàllu yoon mais on peut prendre des exemples ailleurs dans le gouvernement ay ministres yu matoon ministre yoo xamante ne